bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw fii tey daje comme niñ ko defee at mu jot gannaaw boo xamee ne gàmm yegsi na ñu jël ay fan ci waaj jëm ci gàmm yàlla dogal na depuis ñu tàmbali liggéey bi comme ni ma ko waxee waxtaan wala ziyaare mboolem kilifaay diine yi nga xam ne ñoo nekk ci Kaolack yëpp jëflante itam jàpp ne ak ñi nga xam ne ñoo méngoo gàmm ci fi biir Kaolack yëpp jaadu na bu ñu demee bay jeexal gàmm ak niñ baaxoo woon nga xam ne daanañ daje ak lenn ci suñ président yi itam ñu sargal leen sant leen gërëm leen mais également ziyaare bu baax mboolem population Kaolack wala sax Sénégal yëpp ci bis yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax rek nañ dugg nañ ci gàmm alhamdulilah dox nañ lépp li nga xam ne jëloon nañ ko comme engagement wax naa ne ne fii ñu taxaw tey def nañ ko à cent pour cent amul lenn loo xam ne digga woon nañ ko wala waxoon nañ ko ci gàmm ci defuñu moo xam ci kilifa yi la moo xam ci population bi la moo xam ku mën a doon ak niveau boo mën a nekk ca waxoon ne danañ am luñ fa def rek def nañ ko loolu moo tax jaadu ñu daje ak askan wi daaje ñu daje ak way taskatu xibaar yi pour wax ne ñi ngi sant yàlla bu baax ci gàmmu ren gi euh, dox na comme ni mu daan doxee yàlla defal nañu sutura dugg nañ ci gàmm ba ñu ngi koy jeexal nii incha allahu te gisuñ dara loo xamante ni gàllankoor buñ mën a wax la loolu nag sant yàlla la moo tax ñi ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ci loolu mais également di sant mbooleem kilifa yi nga xam ne ñi ngi àndoon ak ñun di liggéey ci gàmm am nañ ay taxawaay yu mucc ayib ci lépp li nga xam ne ay action la yoo xam ne waroon nañ koo def ci gàmm ñu ànd ci ak ñun ñoom itam ñu sant leen gërëm leen mais gërëm tam population bu Kaolack yëpp ndax ñoom itam kaar macha allah ànd nañ ak ubbeeku ànd nañ ak dal ànd nañ ak xam ne bés yi bés yonent bi la ñu ubbeeku ñoom ñëpp ci liñ man ak liñ am ba dalal gan yi ci jàmm ak salaam ba incha allah ñu nekk ci waxtu yi mujj pour jeexal gàmm loolu moo tax ñu wax tey ne ñu ngi sant yàlla bu baax ci li nga xam ne yàlla may nañu ko ñu fekkeewaat gàmmu ren gi màggalaat bis yonent bi sallallahu alayhi wa ci façon bi ñu ko daan defee ca dara changé wu ci non xanaa sax dafa gën a yaatu gën a yokku kon loolu duñ def lu may sant ci yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax kon nag ma wax yéen waa presse bi ne bi ñuy départ ñun ak yéen ñoo départoon ñu ne danañ fexe li nga xam ne waxoon nañ ko ci kilifa yi waxoon nañ ko ci population yi waxoon nañ ko ci quartier yi waxoon nañ ko ci nit ñi nga xam ne dañoo nekk Kaolack soxla ay nimbal maa ngi leen di seedal tey na lépp li ñu waxoon def nañ ko à cent pour cent loolu jaar na pour yéen ñëpp ngeen xam loolu moo tax ñu daje ak yéen pour wax ak yéen li ci desoon mooy berne yi nga xam ne danañ ko def pour yóbbu ko Médina ci amul Samba ak Demba képp koo xam ne sa wërsëg mi ngi ci rek incha allah ñu fexe nga jot ci loolu moo ci des yaakaar naa ne oto yaa ngi nii di ko jël pour ñoom ñëpp ñu départ incha allah àndandoo dem Médina pour def ko loolu moo taxoon ñu daje pour leeral loolu euh, sant bu baax nag comme ni ma wax kilifay diine yi rawatina Cheikh Mouhamadul Mahi ibrahim ñaas sant ko gërëm ko joxuma dara waaye toujours li muy wane mooy ñii samay doom lañ lépp lu ngeen xam ne yéen a ngi ci rek maa ngi seen ginnaaw seen sumay guddi ak samay bëccëg pour dimbale leen mais également encourager leen ba lépp li nga xam ne war nañ koo def ci Kaolack ñu mën koo def kon ñu ngi koy sant di ko gërëm waaye di jaar ci buntam sant gërëm ziyaare mboolem njabootu Maulana Cheikh Ibrahima gi yëpp nga xam ne ñoom itam kar macha allah yombal nañ lépp li nga xam ne nit ñi waroon nañ koo def ci buntam ci buntu ay itam al imam Cheikh Tidiane Ali Cissé ma ziyaare mboolem topp mi nga xam ne ñooy topp bàyyi mépp ci buntoom bu ma ziyaare imam Cheikh Tidiane Ali Cissé to ziyaara naa ñëpp muqaddam yeeg taalibe yeeg ñëpp rek soppe yeeg fuñ mën a nekk ci àdduna sant nañ ci buntu imam ñoom itam ñu gërëm leen sant leen ci dal gi ak àndoo bi ak ni nga xam ne ñëwoon nañ ko wuyoo ko guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais également sant yeneen kilifa diine yi nga xam ne ñu ngi ci Kaolack parce que fu mel ni law nañu seen ñoom itam yónnee nañ fa suñuy barkeelu ci al xalifa Cheikh Ahmed Tidiane xalifa Niass moom itam ñu ziar ko ziar mboolem njabootu maam xalifa yëpp mais également ci Serigne Babacar Kane xalif général bu lew na kaneen moom itam ñu ziyaare ko moom itam comme ni ma ko waxee barkeelu nañ fa comme niñ ko barkeelu fépp moom itam ñu sant ko ziyaare ko ziyaare mboolem njabootu maam Abdou Hamid Kane gi nekk ci Kaolack yëpp kazalika ni ki noonu sant suñu xarit suñu soppe Serigne Babacar mbakke mu kabaro moom itam kazalika ni ki noonu moom itam ci Touba Ndorong ñu sant ko gërëm ko moom itam ziyaara ko ci buntam mboolam njabootu Maulana Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke gi nga xam ne ñoo féete fii ci Kaolack yëpp sant mboolem njabootu diine gi ci des yëpp bàyyiwuñ kenn loolu daal moo nekk li nga xam ne bëggoon nañ koo wax pour ziyaara ñëpp ñu bàyyi leen en attendant comme niñ ko daan defee incha allah ci yeneen yi ngeen xam ne bëgg ngeen ci am ay leeral.